merci d'être avec nous euh, euh, Pape Samba ma yow ma sax fu ma yàkkee sama nakk euh, normalement waroon na yàkk sama nakk ba pare doogoo doogoo doogoo nuyoo ah euh, lii jàll moom mën naa jàll fii ba gannaaw waati suba merci d'être avec nous euh, bég naa ti ak yéen ci télévision Futur Média comme ni ñu koy defee euh, bëccëg bu jot diggante 11h45 normalement jàpp 14h30 exactement midi mooy doog jot ñu ngi ci profité di gërëm équipe yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi diggante info ak yi ci topp bi midi jotee nag ñu jël pause àndandoo ak man ci télévision Futur Média ci kanam. Euh, dinañu am ay euh, invité euh, bokk na ci Yoro Ndiaye qu'on aime beaucoup un très grand artiste xam ngeen ni bu yàggul dafa def benn way ak ak ak ak Marie Ndiaye waaw Marie Ndiaye la tudd woykat bu bu bu jógee Gambie bi te am talent lool on l'a invité une fois ici ci plateau bi donc Yoro Euh, viendra nous voir euh, bu ca kanamee tuuti pour nous parler de ses projets ak yi nga xamante ni moo ngi ci euh, puisque ñaar lay boole li tubaab tuddee utile ak agréable donc midi plus c'est le premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di proposer ci télévision Futur Média et euh, dina ñu euh, recevoir euh, ku tudd Birane Ndiaye alors Birane Ndiaye moom nag mooy directeur général bu groupe social connection consulting il viendra comme jeunes yu bëri ni ñu nekkee ci dëkk bi di am ay initiative yu am solo dina ñu waxtaan nag ci taxawaayam fii ci Sénégal et puis ñu ngi leen di massawu ci tàngoor bi nga xamante ni fi mu nekk dafa tar mais tàngoor bu mondial la foo mënti dem ci àddina ci dëkk yu bëri actuellement ñi ngi dund lii ñu tuddee vague de chaleur regardez avec moi ce qui se passe euh, euh, ci dëkk yu bëri euh, diggante dëkk Europe yi ak yenn ci ay dëkk yu nekk Amérique ak yenn ci ay dëkk yu nekk Asie selon borom xam-xam yi nga xamee ni ràññee nañu leen ci wàllu météo ñu ngi ñuy xamal ni par exemple fu mel ni yenn ci ay dëkk yu nekk États-Unis yenn saa yi seen température yi ci fan yi mën na yéeg ba 43 degrés Euh, boo demee fu mel ni Chine euh, actuellement ñu ngi dund ay température yu tollu ci quarante degrés ay dëkk yu nekk ca Italie euh, actuellement ñu ngi dund ay température yu toll ci trente-sept degrés loolu moo tax ñu ne daanaka àdduna bi yëpp le monde est frappé par de fortes vagues de chaleur voilà dafa am vague de chaleur am canicule actuellement nag àdduna bi dafa toll ci li ñu tuddee vague de chaleur daanaka planète bi mooy surchauffé voilà c'est pour ça hier un pote m'a appelé de la France me disant ouais dégg naa seen dëkk ba dafa tàng ma ne ko yow it seen dëkk ba dafa tàng fi mu ne tàngoor bi dafa universel loolu yëpp euh, li ko waral nag euh, mooy lii ñu tuddee dérèglement euh, climatique wala réchauffement planétaire daanaka ci bis yi yëpp foo mënti dem diggante Amérique Europe ak Asie foo ca dem rek ñu ngi dund ay pic de chaleur yuy yéeg ba presque cinquante degrés dans certains coins loolu nag euh, nañu euh, gën a góorlu ci di euh, féexal sunu ay yaram y a des conduites à tenir et que xam-xam yi souvent dañu ci jox ay conseils par exemple il faut wax beaucoup d'eau parce que yenn saa yi ñun dañuy sax fàtte naan ndox léegi nag tàngoor bi bu àndeek ñàkk naan ndox mën nga dem ba sa yaram manqué ndox mën na indi ay gàllankoor yu doy waar ci wàllu wér yaram et puis na ngeen di aérer Euh, daanaka euh, seen bërëb yi nga xamante ni foofu ngeen di euh, nelawee en tout cas c'est un phénomène qui n'est pas exceptionnel paraît-il puisque daanaka dafa intense ci at mi et pourtant chaque année par exemple rappelez-vous daaw ci mois de juin bi euh, dañ doon wax ni daanaka jour yi ñu gis euh, mu tàng mooy jour yi gënoon a tàng euh, ci ba àdduna sosoo ba léegi ren itam on di la même chose xamuñu nag kañ lay jeex mais l'essentiel est que il faut toujours ngeen di toppatoo seen bopp di rafraîchir zone yi nga xamante ni foofu ngeen di nekk wala fa ngeen di fanaan mais aussi il faut boire beaucoup d'eau donc actuellement àdduna bi dafa nekk ci li ñu tuddee vague de chaleur parce que paraît-il une grande différence chaleur ak canicule euh, bu dee tàngoor bi tar na noonu ci la ñuy wax canicule mais fii ñu tollu tembe le le le monde suffoque voilà donc surchauffe euh, daanaka la àdduna bi du dund euh, di loo xamante ni dëkk yu bëri la laal Afrique ak yeneen dëkk yi ci période bi ñu nekkee. allez on va euh, vous proposer quelques infos yoo xamante ni jot naa ko en attendant ñuy ànd ak rédaction bu télévision Futur Média bu ca kanamee tuuti su benn waxtu jotee daa daañu ànd ak Faty Dieng moo ñu nar a présenter euh, journal wolof bi mais j'aimerais juste vous parler de euh, 5G bu Sonatel xam ngeen ni Orange moom euh, daanaka euh, partenaire officiel la euh, bu Midi Plus bi moo tax bu dee ay mbir Orange mettre na ko en place il faut qu'on en parle par exemple Sonatel daanaka dafa am Sésame boobule euh, en mettant sur la table enveloppe bu toll ci dix-neuf milliards ci kanamu yeneen euh, réseau euh, téléphonie mobile yi nekk fii ci Sénégal jot nañu jàkkaarloo nag ak taskatu xibaar yi. directeur général bu ARTP ñëwaat na ci exclusivité 5G bi nga xamante ni Sonatel moo ko am loolee nag dip contrat d'exploitation boo xamante ni euh, Sonatel ci boppam am na ko fii ci euh, Sénégal j'aimerais qu'on écoute Abdou Karim Sall euh, moom nag moo jiite ARTP ñu déglu ko ci micro Modou Fall. ci réglement bi dañu ne minimum opérateur bu nekk boo buggee am 5G faw nga jël li nga xam ne offre de base bi nga xam ne le prix de réserve. dix-neuf cinq cent la woon cest à balaa ngay dugg di wax di def leneen faw nga dugal dix-neuf cinq cent loolu mooy prix de réserve waaye boo dugalee dix-neuf cinq cent mun nga am yeneen i bloc yeneen band fréquence yoo xam ne mun nga ko yokk ci li nga xam ne mooy band bi ñu joxe ci offre de base bi mooy 60 mégas euh, dans la bande 3400 10 méga dans la bande 700 ci wàllu woowu Sonatel bi ñu ubbee offre am ak condition boobu maanaam ci offre de base bi fay na ci 19 milliards 500 mu teg ci parce que mënoon na fa yem opérateur bu fay dix mille cinq dix neuf milliards cinq cent di nga am soixante dix méga waaye Sonatel jënd na méga bloc bu nekk muy jar trois milliards. pour permettre aux opérateurs ku bugg yokk 10 mégas nga yokk 10 nga fay 3 milliards ku bugg yokk 20 mégas nga fay 6 milliards ku bugg yokk 30 mégas nga fay 9 milliards et cetera et cetera Sonatel nag ñëw na wax ñu moom soxla na cinq beneen cinq yeneen i blocs de 10 mégas dans la bande 3400 muy 15 milliards ce qui fait Sonatel proposé na 34 milliards 500 pour am li nga xam ne moom mooy la. ñu ngi doon déglu ki nga xamante ni moo jiite ARTP euh, di euh, Abdou Karim Sall. Euh, ci micro Modou Fall c'est dommage que dégguma li nga xam ne ñoo ngi koy wax Euh, li ma sama chef bindal 19 milliards la Coro Mbaar Ndiaye waaye Pape Lam nee na milliards la et je pense que euh, euh, moom Abdou Karim Sall nee na 34 milliards di loo xamee ni moo permettre Sonatel mu accueil acquérir ci sésame boobule di 5G face. Euh, aux autres euh, aux autres compagnies de téléphonie mobile euh, fii ci Sénégal ñu doon déglu explication yi nga xamante ni jóge na ci ki nga xamante ni moo jiite ARTP voilà donc on félicite nos amis de la Sonatel exploitation bi nag xam naa bés bu ñu ko tàmbalee dina doon li gën pour ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo internet allez midi neuf mooy doog a jot on va recevoir dans quelques instants notre premier invité mais d'abord am na itam beneen mbir boo xamante ni soxal nañu muy benn xeetu variété soble Euh, bu ñuy xaar euh, fii ci euh, Sénégal bu nar a toll ci cinquante mille tonnes voilà soble moom defe naa daanaka ñëpp la soxal moo tax dégg naa bu mbir moomu la ñëwee njëkk li dina wàññeeku président interprofession wu soble fii ci Sénégal nee na bu ñu ko amee production beeg njëkk li dina gën a wàññeeku Mamadou Ba. mu ngi woo commerçant yi nag euh, pour ñu euh, ñëw ci plateforme de stockage bi nekk Potou euh, pour approvisionner marché bi ci xeetu soble boobule bëgg naa ñu déglu ko puisque Thierno Fall moo nekkoon ak ñoom. fii ci diwaanu Potou ak li ko wër soble bi di variété sonn Sonsa ñor na ba ñu tàmbali ko commercialiser campagne bi nag liñ ci séentu ñu ngi ko xayma ci lu ëpp juróom fukki ju tonnes. ne mu ngi taare stock bu rëy nga fa am na lu nekk gabaar. stock bu rëy nga fa voilà loolu yëpp la ñu boole nekk en tout cas cinquante quelques mille tonnes moom woor na mu ngi taxaw fii mu nekk nii moom. muy nag ab stock bu am solo bu des ci ñaay bi suñu sukkandikoo ci baykat yi nga xamee ni si ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal mu bàyyi ci xel bu baax a baax. Ah, en tout ñu ngi leen di xamal daal yéen commerçant yi seet leen póotu ah dégg naa nekk am na commerçant yoo xam ne ñu ngi topp réew mi di wax ne na leen prix de la république subventionné soble bi jóge bitim réew. loolu ne xaw ma fan la ko su ko président defee xaw ma fan la koy teg ndax ne président président la ah <laughs> ñëpp la ñëpp la jëboote lu jëm ci wàllu prix bi nag ñii di baykat yi ñu ngi dalal xelu askan wi di xamle ni fi mu toll nii dina gën a wàññeeku. xam nga demoon na fi sax ba 17000. demoon na ba waaye nag léegi mu ngi ci quinze mille tey am na yaakaar tool yi li kenn tool yi gën a bari mu gën a wàccaat. ci geneen wàll kii di njiital IPOS moom mi ngi tàllal loxo nguurug Sénégal ngir ñu gën leen a jàppale ci wàllu dencuwaay waaye itam des désenclavé zone de production yi. li ñu xaar mooy nañu nu wutal fu ñu denc soble bi fu moderne boo xam ne soble bi yàqu ci biir réew mi mu bañati amati. deuxièmement encore ñu ubbil ñu ay piste production xam nga fii ci ñaay bi la suuf si dafa nooy nañ période bi piste yi muy def ci biir réew mi nañu dimbali defal ñu piste yi ci biir ci ñaay bi ci fàttali fii ci diwaanu Potou at mu jot ñaari campagne lañuy amal bi jëkk mooy variété ngañ bay bi nga xamee ni si mooy ñor ci noor bi ak itam variété sonsa bi nga xamee ni si lu ci ëpp ci biir nawet bi ci lay ñor voilà donc lu ëpp euh, cinquante mille tonnes soble Euh, ñu ngi koy xaar foofu ca Potou euh, ak euh, li ko wër ki nga xamante ni mu jiite plateforme boobule mu ngi woo commerçant yëpp pour ñu ñëw ci plateforme bi quand même pour approvisionner daanaka marché ci xeetuk soble bu xonk boobu boobule nga xamee ni euh, ñoo ngi koy xaar il bu buñ ci jotee euh, njëgu soble bi war naa gën a mun a wàññeeku euh, midi 12 mooy doogo jot am na itam leneen loo xamee ni ñoo ngi koy waajal di mbir muy xewee ci dëkk bu ñu naan Ngajaga xam ngeen ni Ngajaga mu ngi nekk ci commune Malika daanaka gouvernance bu dakaar amal na nañu ab CRD di comité régional de développement ci waajtaayug pèlerinage bu Ngajaga Euh, nee na nag euh, euh, léegi pèlerinage boobule bokk na ci événement religieux yi gën a mag fii ci Sénégal ndax nag diggante ndakaar rek li ko wër ak yeneen ci ay gox gox goxaan at bu jot ñu bëri dañuy dem di ko fekkee képp koo xam ni rek da ngay wuyoo laay ak képp ku dib jullit ñaare bu at mi yegsee ci. Euh, pèlerinage uk Ngadiaga dañuy dem euh, fekkee ko moo tax nag euh, ñu amaloon ab CRD nga xam ne ni mooy Serigne Seydina mañoon laay di coordonnateur événement bi ak Alhassane Sall gouverneur bu Dakar yëkkati nañu ay kàddu jëmale ko ci waajtaayuk programme boobule bëgg naa itam ñoom it ñu déglu leen ci micro Lamine Diagne ñu dañu convoqué woon un cahier de charge xamante ni moom lañ ko soumettre ñu liggéey ci liggéey bu am solo ak le sous-préfet ñu defar un rapport boo xam ni que ni lépp def nañ ko ci suñu ay soxla ñu jébbal ko le gouverneur loolu tey jii moom la ñu doon révisité di ko xool benn par benn avec tous les chefs de service. Euh, damay wax ni que ni yàgg nañu fekk yu mel nii waaye li ñu gis tey dégg ko tey mën nañu am yaakaar ni que ni que ni. pèlerinage bi tey su gënul ci pèlerinage yi certainement dana dana dana mel na mu war a mel ndax degré d'engagement bi nga xam te ni gis nañu ko ci euh, taxawaay ci gouverneur préfet ak l'ensemble des services gis nañu ni que ni que ni ku ci nekk am nga ci xol am nga ci xerte am nga ci yéene. ñoom ñëpp incha allah dinañu mobiliser pour que pèlerinage bi nga xam ni bokk na ci événement communauté layène yu gën a mag. ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin mu nekk euh, organisation bu mucc ayib nit ñi taxaw service état yi taxaw parce que loolu mooy li nga xam ne moom la ñu président sant mooy li nga xam ne également moom la ñu ministre de l' sant pour xew-xew yu mel nii bu amee nañu ci jàpp nañu ci taxaw encadré accompagné ba mu sotti ñu soog a dem ci leneen. wàllum sécurité bi incha allah dinañ ko xool bu baax a baax a baax ndax euh, dinañu bëgg nañu ak euh, police. indi ay éléments yu doy déjà pour euh, facilité nit ñi ñu mën a si ndax ñëpp gis nañu Dakar léegi dafay xat alors day am embouteillage et bu ñu taxawul rek euh, defar mbedd mi defar yoon yi dinañ am jafe-jafe pour ñu ñi mën a si waa donc ñu doon déglu euh, Serigne euh, Seydina Mandione Laye ak ki nga xamante ni euh, mooy Alhassane sàll gouverneur bu Dakar ci micro Ibou Diouf ak Lamine Diagne ñoom nag ñu doon ñëwaat ñëwaat ci solos Euh, programme bu mag boobu boobule nga xam ne ni at bu jot dañu koy amal euh, ca dëkk bu ñu naan euh, Ngadiaga nekk ca commune bu Malika nga xam ne ni daanaka sunu mbokk jullit yëpp rawatina képp ku ne ci axlu laay da nga koy waajal loole nag buñ ca tollee di ngeen ko mën a dund ci télévision Futur Média midi quinze mooy doog a jot ci kanam tuuti ma fàttaliwaat leen ko daañu recevoir. Euh, Birane Ndiaye Sissoko directeur général euh, bu groupe social euh, Connection Connexion Consulting il viendra donc nu parler de li nga xamante ni ci lay liggéey ci wàllu domaine éducatif travailleur social ba noppi tam li nga xamante ni ñoo ngi ci c'est dommage que c'est pas les mais dinañu waxtaan ci lu am solo fileeg ay minutes Euh, ci euh, plateau bi en attendant j'aimerais vous présenter euh, clip bu bees bu Numukunda ak Mami Kanouté voilà regardez c'est tout nouveau mais en même temps di waxtaan ak Birane Ndiaye Sissoko mais Ndiaye Sissoko musuma dégg loolu ah Ndiaye Sissoko Ndiaye Sissoko ah ñaari extrême ñaari extrémité la Ndiaye Sissoko bon Euh, on n'est pas là pour parler de ça mais il va nous parler de euh, li nga xamante ni euh, jiite na ko surtout ñetti entités yi nga xamante ni dafay soxal xale yi xam ngeen ni ñu ngi doog a jeexal. ñu ngi doog a génn ci baccalauréat par exemple euh, et très souvent xale yi doog a am bac dañuy bëgg dem jàngi bitim réew par exemple et que maintenant avec les réseaux sociaux ak euh, digital bi ni mu mel Euh, yenn saa yi on se rend compte am na ci ñoo xamante ni amuñu benn crédibilité et que souvent bëri na ay parents yuy euh, ñàkk seen xaalis et seen ay doom Euh, du ñu mën a dem euh, jàngi Canada par exemple comme il faut mais heureusement euh, y a des jeunes comme lui ak ñi mu àndal teg ay plateforme ak ay agence yu am solo yu crédible pour surtout ces jeunes qui veulent aller continu continuer seen ay jàng feneen donc dinañ tàmbali waxtaan bi dans quelques instants mais d'abord mon commentaire ci li ñu doon seetaan léegi nii c'est une très belle chanson xam ngeen ni Sénégal du mbalax bi kese la ñu am voilà am na yeneen genre yoo xamante ni euh, am na ay artistes yoo xamante ni ñoo ngi ci par exemple musique mandeng bi quand on entend euh, certains artistes chanter par exemple Numukunda wala Mami Kanouté on a tendance à penser que euh, ay maliens la ñu et pourtant c'est des sénégalais yoo xamante ni fii la ñu juddoo fii la ñu màggee Mami Kanouté que vous connaissez comme da ngeen bëgg Wally Seck moo ko Wally ñoo doo mbër mu yàlla samp doo daanu di woy bu neex donc mu woyandoo ak euh, El nu Numukunda euh, clip bi euh, samedi bi passé la génn c'est une chanson qui passera en boucle ci Midi Plus bi on va remettre ça tout à l'heure et puis ñu tàmbali waxtaan bi ak Birane ñu ngi lay nuyu merci d'être là ah da ngeen bëgg ma wax ak Mamadou Ndiaye ba pare balaa mooy wax ak Birane ay ca a pas donc Birane euh, euh, xaaral ma wax ak booy bi ba pare my boy petit pelé. yee directeur. mais naka mu <laughs> DG ah. DG. mais DG ci la ne. temps yi coowal DG moo lëmbee moo réew mi. billaay DG ñëpp. waxuma bu seytaane bi di ci dugal làmminam oustaz boobu moo gën a seytaane sur terre. mais koo du turam. mais koo gis mu ne DG la. non non non non man waxuma ma tur <laughs> Pape Samb tudduma tur. oustaz bu seytaanee moo toog ci télé bi di di di gën a jàmb xam nga moom jàmbkat la uh-huh. dafay xamb uh-huh. affaire bi bu nekkee xoola bu nekkee un pour cent mu yokk da koy yokk def ko deux cent pour cent oustaz bu seytaane mais mais tudduma tur mais coowal coowal DG bi El Hadj waaw mais def na buzz nag ci réseaux sociaux waaye yow lépp ak oustaz bi rek mais oustaz bi gën na yokk affaire bi comme ni nga koy waxee oustaz bi dafa seytaane <laughs> eh Pape Samba man tudd ma tur de <laughs> Pape Samba tudd ma tur yow yaa tudd tur <laughs> te loolu ci xamul oustaz bi daf ñëw invité dimanche booru Louga de ah waaye man nee naa ko soo ma joxul paas du ma ñëw kon de samedi dañuy dem ci yëf yi ba pare cité Ndeye mari doo ko dem dimanche ñu dem fële wax nga dëgg lu xew cité Ndeye mari non dañ ma bàyyi lee xam nga pare la pour la première fois ki la bàyyi la xanaa bëggul doom ji ah. sama mag jee def loolu. ah sama mag ji di wax dëgg yàlla xam naa doom ji mu la bàyyi la nag mooy doom ji mu gën a foowe <laughs> bon. <laughs> je blague alors DG ci kanam dinañu ànd ak yow ak euh, Merry Beye Diouf comme ça eh. ngeen wax ñu li xew biir internet euh, lan ak lan ngeen nar a développé ci kanam dinañ dinañ dinañ développé yu am solo yoo xamante ni toujours dina soxal téléspectateurs ak internautes yi dinañ waxtaan ci mbirum plateforme yi WhatsApp mm. euh, Twitter nga xamante ni fi mu ne nii plateforme boobu buy def buzz la ci réseaux sociaux yi dañ ci ñëw expliqué leen mais ak yeneen commentaire ak actualité yoo xamante ni dina soxal téléspectateurs ak internautes yi Pape Djibril Fall bien sûr bi lay devenu viral président. waaw sa président. Pape Djibril mooy sama man mooy sama candidat. mais mais mais vidéo bi nag moom moom moom def na lu viral quoi ñëpp a ngi ciy commentaire yor kurusam di wér mais sénégalais yi ku ci nekk amul di joxe sa xalaat quoi. moom moom nag fi mu ne nii moom am naa ni euh, gars yi daal. xale yi jox nañ ko bës jox nañ ko jox nañ ko bopp. jox nañ ko bopp waa kii mooy président Fall. <laughs> président Fall ngi man mooy sama président. ci kanam dinañ ci ñëw. ak uh-huh. mariage yi def bës aussi dinañ ci ñëw fi mu ne nii. waa kër Mbakki yu fay. voilà kooku mooy Badiane Faye. mi ngi noonu mariage mariage moom. Eh. mariage de l'année. ah c'est c'est le mariage de l'année bu fi kenn marié mariéti ci 2023 bi comme ni ñu koy commentaire. waa kër Mbakki yu fay ñoom ñëpp a rafet. macha allah. caat moomu numbe. Uh-huh. xanaa gisoo caat mi. ah caat mee ngoogu. eh. caat mi ak mag ji lañ doon mayendoo bilaay seen mag nag bàjjan soxna fay moo yenu yëpp yenu na affaire yi taxaw taxawaayu yaay macha allah eh mbakki fay moo rafeti doom cré créé nañ ko wax de nee nañ ko yow rek la ñuy topp bàjjan soxna fay ñoom ñi takk ñoom ñi takk ñaari doomi mbàkki yu fay eh. ah, da day ba ci jabar ju rafet lu tax ma xalaat loolu loolu rek nga doon wax de waaw doo ma bàyyi maa la yar <laughs> sa wax la de maa la yar bi ma ko bi ma gisee affaire yi ma ne naan lii la bàyyi di naan travail de maman day feeñ ba ci ki kay takk maa la yar. dëgg la de <laughs> ci kanam El Hadj. ok ñëw yaatal yooyu. d'accord. ok à tout à l'heure donc ci kanam ngeen wax ñu li xew biir internet midi 26 et puis en même temps euh, rédaction baa ngi préparé wu pour journalu wolof bi daañu ci ànd ak euh, Faty euh, ci kanam tuuti euh, bu benn waxtu jotee voilà donc defe naa léegi mën nañu tàmbali waxtaan bi ak suñu invité bu njëkk Birane merci d'être là ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci teewaay bi ci midi plus d'abord. Mhm. dañ lay bàyyi nga nuyoog internautes yeeg téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan. jërëjëf maa ngi kontaan si invitation bi si dalal bi. Mhm. Euh, di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan si télé bi di nuyu suñu mbokk internet yi. surtout parce que léegi moom domaine digital bi am na doole. ba nga ah xamante ah ne kër yi dañuy taal télé yi ku nekk nekk sa téléphone bi donc noonu la àdduna di doxee. donc côté yëpp la ñuy la ñuy bëgg di leen euh, di waxtaan ak ñoom. jërëjëf. Euh, d' abord damay commencé si kontaan si li nga wax sànq. nga ne mhm. Ndiaye Cissokho. extrémité la ñaari extrémité la sorante <laughs> ma ne loolu mooy Afrique. xam nga tubaab yi ñoo ñëw indi si ñu ñun ay frontières mais daanaka frontière amul. sama papa c'est un ancien cheminot. donc bu ñëwoon liggéey si à Kaolack sama maam excusez-moi. sama maam waaw nekk jeune. mbaa delloo wuñ ko ci grève des cheminots. non delloo wuñ ko. ah ok il nekk waaw il est resté. sama maam ci grève des ci grève ah, des cheminots yi. dafa demoon à Thiès. dañ ko delloo Mali dañ ko delloo moo paa bi delloo wuñ ko ndax daa ñëw rek takk sénégalaise. man nag sama maam dafa takk sénégalaise ba pare après ñu refoulé ko. ah dafa waroon ah. dafa waroon bañ moom toogu ah. la <laughs> dafa waroon bañ man daal sama maam dem na. dem na dellu na ba mu retraité. ne day dund di jaay bambara bu. <laughs> waaw naqari dara dem. mais dégg naa weer la fa def xam Sénégal dafa neex weer la fa def mu ñibbi si waat. <laughs> loolu mooy histoire bi donc euh, voilà mais sama papa moom mën tuddee. tuddee ba tuddee sant jox ma tur jox ma sant turandoo. sant Ndiaye et puis man ma sant Sissoko donc mu nekk tur boo xamante ne gisuma si ñaar benn rek laa si gis ah <laughs> sant yàlla sant yàlla <laughs> donc Pape Cheikh man damay jiita benn kuréel hmm. benn agence kon nu ñu koy wax boo xamante ne am na maintenant treize ans d' expérience dans le marché oui dans de de de d'envoyer des étudiants à l'étranger pour ñu jàng out ay xam-xam hmm. euh, je travaille avec euh, beaucoup décole yu nekk en Amérique du Nord hmm. maanaam Canada États-Unis en Europe, euh, France, euh, Allemagne, euh, Angleterre et puis même en Asie, Chine, Japon. Mhm. donc euh, depuis treize ans ñu ngi nekk ci liggéey bi. Mhm. am nañu beaucoup d'étudiants yoo xamante ne tey gis nañu seen yoon et que comme lu may wax rek fan la fan ngay kontaanee. Mhm. mooy suñu soo ñëwee sa étudiant ne la tey réussir na tey maa ngi fii nii ba si y a un mois kenn ku ma ne. man je viens d'être recruté par Meta. Ah. donc dugg naa Silicon Valley. je suis recruté par Meta donc c' était une très grande fierté pour moi. donc euh, ñi nga xamante ni ya de cela cinq ans sept ans dix ans. Mhm. yóbbu nga leen dans de bonnes conditions dans de bonnes écoles tey ñoom ñoo nekk des cadres supérieurs dans certains pays même. Mhm. mais toujours di wax rek nekk dem uti ji xam-xam nekkul pour dem toog dëkk. Mhm. mais dem ñëwaat jëriñ sa dëkk. donc euh, loolu la et que on à l'international ah. quand même oui donc bëriwul ñu ko fi am. Euh, am nañu ko fi am mais bëriwuñu mais on est accrédité à l'international ça nous permet de pouvoir prendre des étudiants travailler avec des écoles les am ne dans le cadre de recrutement xam nga loolu mooy waral lan mooy waral tey école ak université yi nga xamante ñun moom la ñuy liggéeyal mhm. seen service d'admission dañu lu mel ni kon réew bu mel ni Sénégal dañu ko jox ah. dañu kat yow comme que yow ñun léegi dañuy liggéey ak yow te am nañu confiance am na lu ñu tënk mhm. soit la la région la sous-région ou bien le pays. Mhm. donc mu waral ne que ñun étudiant bu ñëw dañuy mun a xool sa dossier évaluer ko valider ko. appui wax école pour ñu defaral la lettre su ñu la defaree lettre nag ñu accompagner la pour que nga def sa demande de visa am sa visa defal la accompagnement pour que nga am sa logement mhm. defal la tout ce qu'il faut donc et di def nag si anam euh, bu am solo mhm. parce que ñun aussi tamit on est évalué par des critères parce que fu ñu bokk c'est euh, crédibilité bi jaar ci exactement dañoo am accréditation internationale te vraiment lu ñu li nga xamante ne moom la ñu bokk mooy accréditation boobu noonu mhm. xamante ni tey ñoom moom la ñuy indi Sénégal comme lu war a am euh, le vendredi et le samedi muy salon international de l'éducation mm-hmm. ñi nga xamante ne moom la ñuy bokk ñoo siy bokk di ñëw di jóge au Canada di jóge aux États-Unis di jóge en Europe di ñu ñëwal mm-hmm. c'est parce que tout simplement on a une très bonne euh, réputation dans le domaine uh-huh. moo tax ñuy ñëw uh-huh. et que service d'accréditation bi nga xamante ne bokk nañ ko mu nekk euh, benn organisation internationale uh-huh. jox nañ leen aval pour que ñoom ñu ñëwal ñu Sénégal donc loolu moo waral vraiment li nga xamante ne moom la ñuy organiser le vendredi 21 et le samedi 22 ce vendredi là oui oui si benn hôtel Radisson euh, muy salon international de l'éducation bëgg dindi barrière par exemple euh, école yu nekk à l'étranger ñëw jàkkaarloog étudiants yi nga xamante ne ñu ngi fi. ngeen wax ñu wax ensemble seen directement ah. seen soxla puis ñu defal leen sur le sur place seen admission looloo waral nag li nga xamante ne moom lañ def muy salon international de l'éducation bi nga xamante ne def nañ ko juste après l'examen du baccalauréat mm-hmm. c'est pour les opportunités aux Sénégalais aux étudiants mm-hmm. pour que comme ni nga ko waxee arnaque yi bëri na nit ñi ñu ngi ubbi luy dox rek nit ñi dañ ci loolu laa ci loolu laa bëggoon wax parce que ah. yéen bu ngeen demee ba am crédibilité mm-hmm. euh, ba def plus de dix euh, ci domaine bi ça liggéey bi ngeen di def euh, am ngeen ci reconnaissance et de vos pairs mhm. et des grandes universités yu nekk bitim réew par exemple Canada euh, euh, simplul euh, mhm. pour étudiants mhm. jógee fii dem jàngi ji foofu donc étudiants yi nga xamante ni ñooy ñëw vers vous yan condition ngeen leen di tegal pour bu ñu ñëwee mën a dem jàngi ci beneen dëkk waaw xam nga condition yi mooy ñun déjà à la base mooy kuy jàng ji il faut que nga xam ne que c'est un budget c'est ah. un financement du du histoire damaa bëgg génn rek génn comme ni ñu koy waxee neex na trop ñu ubbi bunt yi ñëpp dem. Mhm. mais tamit objectif bi mooy jàng dëkk bu mel ni kon Canada tey dafa nekk dëkk boo xamante ni. Mhm. vraiment de plus en plus. Euh, étudiants yi dañ fay bëgg dem. Mhm. parce que euh, dafa nekk dëkk bu xaw a attractif dans le domaine des études. parce que soo jàngee ba am sa diplôme. da am. ay lu mel ni comme permis de travail résidence loolu bëriwul ay dëkk yoo xam te vraiment direct joxe gaaw na comme Canada ni ñu koy ni ñu koy joxe moo tax mu attractif donc mu nekk tamit dëkk boo xamante ni aussi dañoo soxla nit soxla liggéey liggéey am fa teg si mhm. donc euh, mu nekk loo xamante ni nit ñi daf leen intéressé mhm. mais nag nu ma leen intéressé noonu moo tax mu bëri kon lu ñuy wax ay arnaque ah. sur les réseaux sociaux partout am na ñoo xamante parce tout le temps je vois par exemple sur TikTok des gens qui disent ouais bu ngeen bëggee jàngi bu ngeen bëggee def li mhm. après man je ne comprends euh, moo tax toujours damay wax parents yi nga xamante ni ñooy bëgg yóbbu seen doom mhm. ñu dem ci ak beaucoup de prudence exactement ah. il faut y aller avec beaucoup de prudence ba pare di informer wu mhm. parce que l'information par exemple kon lu may wax rek Canada chaque jour nit ñëw ne ma ah Canada dañoo soxla ne Canada dañ nee nañ ubbi nañu buntu yi Canada nee nañ ku déposer ñu jox la ma ne leen non non c'est pas comme ça les choses soo bëggee ñëw nekkul nekk dañoo ñëw rek ubbi buntu yi da ngay ñëw non non am na yoon boo xam te ne euh, foofu nga war a jaar te y a des sites hmm. officiels comme le site du gouvernement canadien c'est-à-dire bi nga xamante ni ah. la nekk nekkul nekk internet lu fa nekk rek lu baax la bëri na ñoo xamante ni sama genre yi damay ñëw def site bind si lu ma neex publier kenn moomu ko ma maa ko def sur base lan laa ko def kenn xamul hmm. mais y a des sites lu mel ni kon école officielle yi hmm. yu fa nekk hmm. ak site gouvernement bi il donne de bonnes informations et que nit ñi cette information là ça demande pas dugg TikTok wala dugg Facebook wala dugg si réseaux sociaux yi da ngay dem sur le site web du gouvernement ni nga expérience personnelle la ñuy wax pourtant mën nañu bañ a nekk professionnel de l'éducation parce que man je suis professionnel de l'éducation mhm. moom laa jàng moom laay liggéey pendant treize moom laa xam si laa nekk donc je vraiment un conseiller de l'éducation internationale mhm. Mhm. maanaam mbirum jàng à l'international loolu moom sama xam-xam da si màcc te am naa si vraiment macha allah loo xamante ne mën naa ko si apporter chaque fois si conseil ak nit yoon bu muy jaar donc si kaw loolu noonu si la ñuy toog Canada neex na trop mais investissement la budget la. Mhm. et que Canada bokkul ak dëkk boo xamante ne da ngay dem amoo xaalis foog ne di nga si taaba taaba mhm. génn non non yi da leen di. fay eh, d'abord yi. fay écoles yi ah. jàng normalement liggéey normalement. d'accord pare sa jàng am say kayit. Euh, euh, comme bachelier bu bees. y' a mhm. beaucoup de bacheliers qui nous qui, qui nous mhm. regardent. Mhm. Euh, di féliciter voilà surtout mais c'est sûr que actuellement. macha allah kontaan naa léegi ñu génn léegi ñu su. kontaan et tout ça. war a xalaat nag seen avenir. et le temps passe vite. Ah ce qui veut dire que s'ils ont tout. ba ñëw vers vous. immédiatement dañuy am. possibilité dem sans problème. effectivement mais dem bi si ay anam la. Ah. parce que déjà rek. Euh, école su fekkee ne que école yi c'est déjà résolu ñoo leen représenté fii nii xëy na délai de traitement yi mën na nekk euh, lu gaaw mhm. mais soo paree école ba am école mhm. bul fàtte ne que da war a sa parant dafa la war jox support financier dem banque euh, xool ndax xaalis bi mu ngi fa. bloqué ko pour say études. généralement nekkul blocage boo xam te dañuy ñëw rek bloqué. mais xool ndax moom dans les conditions de son travail ak xaalis bi mu am dina la mën a fayal su parent bi levé équivoque boobu noonu ba mu jàll mu des parti déposé. Hmm. parce que aussi immigration maanaam ñi euh, ñi nekkal fii nii ambassade. nekkul ne que da ngay dugal sa dossier rek ñu valider ko non non dossier le traitement des dossiers c'est minimum huit huit semaines te mhm. huit semaines sax yenn saa da koy ëpp actuellement si période yi la xamante moom la ñu tuddee la grande saison mhm. euh, traitement yi ay douze semaines lay ah, doon quinze semaines voilà tout ça boo xamante ne instant yi am nga bag bëgg nga dem il faut nga projeter en janvier ah. et nga déposer ko avant peut-être fin août mhm. et que su fekkee ne que nga loolu rek xëy na euh, rentrée mai ngay jël demaat mooy mais 2024 ou bien septembre 2024. d'accord donc c'est une procédure boo xam te dañ koy teel a ko entamer. mais aussi dénk ko ay professionnels yoo xamante ne dinañ la mën a conseiller convenablement. Mhm. parce que soo ratee conseil bi rek. Mhm. maanaam da ngay foog ne euh, da ngay dem rek euh, conditions yëpp réunir. mooy seen agence bi. waaw ça donc a a y a alors am na itam souvent beaucoup de mhm. beaucoup d'étudiants yoo xamante ni dañuy jàmbat. dañuy dem ci agence. Mhm. ñu proposer leen école. Mhm. ñu dem. Mhm. mais ci école boo xamante ni. Euh, du ñu leen reconnaître. est-ce que ça existe ça. ça existe très bien. am na ñoo xamante ne sont pas reconnus par exemple. ah xam nga au Canada. Euh, maanaam euh, école boo xamante ne jox nañ la possibilité pour nga indi étudiant. Mm am na loo xamante ne xaatim nañ ko ak gouvernement bi c'est-à-dire que nekkul école yu nekk Canada yëpp mën a recruter étudiant à ah. ak numéro boo xamante ni mhm. gouvernement bi da la koy jox école yooyu noonu yëpp ñu ngi comme fu ma la ko waxee si surtout gouvernement canadien bi mhm. mhm. mu ngi suñu demee foofu noonu dinañ gis telle école am na droit recruter telle école diplôme am yi mën na ma permettre ma am permis de travail telle école diplôme am yi mënu ma permettre ma am permis étudiant boo xamante ne am na bac. Mhm. donc euh, mais étude école boo xamante ne pare na pour pour pour recruter à l'international mën na jël étudiant bu am bac. Mhm. mais Pape Cheikh aussi defatu defuñu juste Canada dañuy def États-Unis dañuy def yeneen dëkk. Mhm. États-Unis aussi tamit euh, <clears throat> nekk na dëkk boo xamante ni xëy na Canada daf ko raw tuuti parce que États-Unis yenn filière soo ko defee ba pare. stage ngay def liggéey un an wala deux ans puis après ñibbisi. États-Unis condition yooyu la alors que da ngay jàng liggéey puis après nga am permis de travail. Mm. permis de travail bi may la peut-être résidence mm. résidence bi may la euh, au final peut-être euh, nga am citoyenneté. Mm. donc looloo tax mu attractif mais dëkk yëpp lañuy def. voilà et euh, pour mën a permettre xale yi étudiants yi ñu gën a comprendre. Mm-hmm. ngeen di organiser salon international de l'éducation est-ce que tu peux revenir ci événement boobu. waa événement bi moom c'est événement annuel la boo xamante ni dañ koy def. Euh, maa ngi rappelé en 2020 ñëwoon nañ fi ak suñu délégation <laughs> yi nga xamante ni participé woon nañ si salon boobu mhm. parce que chaque fois dañuy bëgg mhm. li nga xamante ni moom la ñuy liggéey mu bañ a nekk mirage si xale yeeg parents yi ñu koy séenee fu sori du dara bañ a nekk ay rêve ay rêve ak yooyu noonu moo tax dañ leen di woo pour que ñu ñëw xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg dem ñu wax ak ñoom mais aussi tamit dafay génnee équivoque yu bëri mhm. parce que tey tubaab boo xamante ni mosul ñëw Afrique nu muy xalaatee Afrique dafa xaw a doy waar. <laughs> dafa xaw a doy waar tubaab rek nga wax cest à dañoo dem sax ba dugal yenn xalaat yi. ci ay euh, nit yu ñuul. exactement ci ay doomi sénégalais. par exemple exactement. moo tax ku si ñëw ku ma ku ma fi indi Afrique ba nga ñëw. man sama benn doomu euh, sama rakku papa. Euh, uh-huh. son mari doomam ñëw uh-huh. vacances. Uh-huh. ma dugal ko sama oto mu ne ah kon fii Sénégal am na Range Rover. mais mais yooyu la ñuy def donc yooyu la ñuy def moo tax man. ma ne ko yow sama papa dawalul sax oto bu ndaw bi. xoolal ma <laughs> loolu ci dëkk boobu ngeen donc eux ils ont des. ils yoo xamante nañ ko ci. si ñun euh, ci dëkk moo tax dafa baax on vit pas des arbres ah. c'est ça moo tax dafa baax dama man su ñu ñëwee lu si bëri damay organiser ay visites dans des écoles ñu xool. élèves yi nga xamante ni ñu ngi ñëw si ñoom. ku si toog sa bureau pour lu poser la problème tu te mets une idée de fu mu jógee. et loolu dafa am solo. day tax lu bëri mu équivoque yu bëri ñu lever ko. Mm. day tax ñu respecter étudiants yi ba pare day tax aussi tamit ñu xam dëkk bi xam nga Sénégal lu may wax rek ak man moom laay ñaan mooy mm. Sénégal dëkk éducatif la. Mm. tey maa ngi recruter ay étudiants yuy dem à l' international mais y' a beaucoup d' étudiants yoo xamante ni dañuy jóge à ñëw Sénégal. étudiants yooyu dañoo soxla accompagnement. parce que industrie lañu nekk l' industrie de l' de éducation internationale tey Canada. industrie de recrutement de l'étudiant international dafa nekk lu am solo lu am solo si économie dëkk bi étudiants internationaux yuy ñëw ku siy ñëw si si sa euh, carrière étude su fekkee deux ans ngay jàng di nga def vingt millions ci école à peu près mën na nekk quinze mën na nekk vingt sans compter li ngay in apporter si économie dëkk bi donc benn étudiant laa la wax imaginel ñaata étudiant ñooy ñëw au Canada. Le Sénégal est environ sur des chiffres de 4000 étudiants yu fi jóge yuy dem au Canada mm-hmm. donc de sa euh, euh, lu mel noonu am na fi c'est-à-dire que y beaucoup d'étudiants africains yoo xam te dañuy ñëw Sénégal pour jàng fi di fay mais locataire yu bëri dañ lay mm-hmm. naan man étudiant laa bëgg louer ah parce que am na lu muy apporter ah, ah, ah. économie bi man mm-hmm. loolu laa bëgg vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk éducation ñu xalaat ko parce que économie la au-delà de jàng nekk benn priorité. Mhm. am na benn économie bu ndaw boo xamante ne mu ngi koy générer. Mhm. ñooñu dañoo laaj encadrement. Mhm. dañoo laaj. ñu fan xamee kay parce que étudiants yu bëri dañuy jógee pour ñëw Sénégal. Mhm. ñun suñu étudiants yi li ñuy jànkoonteel yenn saa yi mu gën a yomb si ñoom fii dafa gën a difficile. ah pour ñu ñëw jàng si ah, fii c'est un cri de cœur que je lance aussi pour que mhm. ñi nga xamante ñoo ŋànk éducation. Mhm. ak ñi nga xamante ñu ngi indi ay étudiants ñu ñëw si au Sénégal. ñu gën a réformer lool parce que économie la mais aussi tamit Sénégal ëpp éducatif la loolu laa laay bañ euh, yu bëri tey soo amee bac. soo demul France demoo Sénégal ngay ñëw de. c'est vrai Sénégal ngay ñëw. oui y en a donc loolu noonu dafa jara laaj xalaat bu am solo. Mm-hmm. te man. recrutement de l' étudiant à l' international loolu laa xam te pare naa si liggéey ki nga xamante ne bëgg nañu accompagner ko si mhm. parce que loolu daf ma ñor parce que sama dëkk la mhm. te étudiant bi nga xamante ne yóbbu naa ko tey nga réussir si sa jàng mhm. man dama lay naan quand même y a des opportunités au xam-xam nga demoon uti ji def nga stage si entreprise wala liggéey nga si entreprise ñëwal Sénégal ñëwal Sénégal nga transposer li nga liggéey parce que soxla nañ ko soxla nañ ko donc loolu vraiment moo nekkoon mm. sama xalaat si peut-être que man duma am euh, euh, toutes les questions y a beaucoup d'étudiants mhm. euh, ma waxaat ko yu mhm. seetaan mhm. yu bëgg a dem jàngi feneen am ah, moo xam Amérique wala Canada avant même ñu ñëw ci salon bi comment peuvent-ils faire pour entrer en contact ak euh, agence bi nga xamante ni yaa ko xam nga agence yi mën nañu ñu contacter si numéro yi yi nga xamante ni moom la ñu am le 77 708 08 08 77 708 708 08 08 08 08 waaw uh-huh. wala ñu dem sur le site web www. 3W. connexion sociale point com. connexion sociale. point com point com. waaw c'est-à-dire étudiant bu woote ci numéro de téléphone bi rek. Mhm. dina am toutes les informations nécessaires. Mhm. concernant dëkk bu mu bëgg dem. exactement jàngi exactement. te information yëpp c'est disponible. ñun non seulement dinañ la jox information mais dinañ la jox ay site de référence yoo xamante ni di nga fa dugg pour xoolal sa bopp gëstul sa bopp et puis après jour salon bi ñi nga xamante ni ñooy ñëw. nga toog waxtaan ak ñoom par rapport ak sa projet. te projet bi dañ lay ñaan tamit que ça soit benn projet boo xam te ni ça sera accompagné par les parents. loolu sax laa bëggoon nga développer lan mooy nekk avantage su. Euh, mhm. étudiant bi ak parent wam. Mhm. ñëw vendredi ci événement bi. parce que non seulement di nga contact direct. avec l'école mais aussi on fait les admissions directes parce que le samedi. Mhm. c'est une journée décernée à l'admission directe ak école bi yu nekk foofu noonu mën nañ la defar sur place euh, lettre d'admission. ak kayit yëpp c'est-à-dire. Euh, diplôme bulletin diplôme parce que yooyu mooy base bu war na que ne yow jàng nga am nga am nga les critères requis pour pour dem euh, defi ji le programme. Mhm. su la joxee kayit boobu noonu nag après nag suite bi mooy déposer demande bi déposer demande bi salon bi su jeexee soo ñëwee si ñu ñu accompagner la pour que nga def sa demande de visa. Mhm. loolu la donc ce sera sur sur combien de ah mën na nekk si loo xam te dañ koy tabler sur sur une semaine. ok non je je parle de l'événement. l'événement c'est sur deux jours. le vendredi. Euh, de 9h à 17h. Mhm. et le samedi de 9h mhm. à 14h. ah mhm. d'accord. Euh, ce sera au. au Radisson au donc il faudrait que élèves yëpp ñëw. oui étudiants yëpp ñëw. Oui. et l'idéal est que mhm. ku ciy ñëw. nga mhm. ànd peut-être ak sa tuteur wala sa exactement parce que projet d'étude ñoom ñoo koy approuvé. Ah. étudiant moom bëgg na dem yàgg na bëgg a dem te bëgg a dem taxut mën a dem. donc ñu lay jàppale ñuy jàpp si mbagg bi. Mhm. parce que étudiant nga quand même. c'est un investissement suñu investir si yow nga am jom moom c'est sûr que ne retour d'investissement. quel conseil tu ah moom vraiment dama leen di wax ne Euh, ki nga xamante ne mën na dem parents yi mën ka accompagner. Mm-hmm. parents yi mën ko accompagner encore c' est important pas nga dem lebloo say parents pour que ñu accompagner la mais ñu mën la accompagner si critères yu wóor uh-huh. na nga ñëw mais li may wax leneen mooy Pape Cheikh fii dëkk bi am na ay école yu baax yoo xamante ni ku si nekk jàng nga fi réussir nga fi salon bi am na ay salon exactement exactement na ay c' est très bon à man tee naa ma ah dem jàng ji médecine euh, à l' étranger dama xëy reetaat ma ne ko la école de médecine fii la nekk papa ji toog yaay ji toog mën a leen téye leen ko fii soo leen ko téyewul fii su demee foofu infirmier la fay nekk wala leneen meilleure école de médecine fii la nekk donc fii ay écoles yu baax ñu ngi fii mm, mm. et même ñoo xamante ne am nañu bac te bëgguñu teel a dem seen parents yi dañuy tiit si maturité yi et tout mm. yi ñu ngi fi. école aussi tamit école quand même nañu xool tamit critères yi am na yenn critères yoo xam te gouvernement bi teg na ko sur place ANAQ-Sup CAMES ak yooyu nga xool bu baax xool école yu am programme yi nga xamante ne accrédité nañ ko nga dem fa nga jàngi ko mm-hmm. parce que tamit réussite bi finalité bi mooy réussite bi ñu am na ñoo xamante ne dem nañu aussi tamit euh, ñu nekk fi gën leen réussir c'est vrai donc man lu may wax mooy ñu ngi def salon dañuy ut <laughs> ubbeeku rek mais aussi tamit euh, fii tamit yu baax ñu ngi fi donc nekk ñu ñoo xamante ne dañuy naan na xale yi ñëw ñu génne leen non non mm-hmm. mais dañoo bëgg xale yi am benn valeur ajoutée sûre dans dix ans quinze ans entreprise bu ñu dugg. ñooñu ñoon ñu fa fekk ñu xam ne que ñii ils ont été très bien formés. donc loolu mooy suñu finalité. nous on est dans l'éducation on connaît que l'éducation et on est prêt à accompagner quiconque dans ce domaine-là pour que mu vraiment am une réussite parfaite si li nga xamante ne moom la moom moom la bëgg. parfait donc mm-hmm. rendez-vous vendredi ak euh, euh, samedi. Mm-hmm. Euh, ce sera au Radisson c'est ça. oui au Radisson à partir de neuf heures donc venez avec vos parents. Mm-hmm. qui est intéressant dans ce que dit euh, Birane mooy du ko ñëw rek dañ lay wax ñi demal mhm. voilà bu dee euh, possibilité euh, tekk fii ci njàng mi moo gën pour yow mhm. autant que tu restes bu dee aussi possibilité dem bi mooy indi réussite pour étudiant bi ils peuvent vous accompagner au début jusqu'à la fin de admission wu étudiant bi donc dès dès vendredi incha allah à partir de 9h jusqu'à 17h venez avec vos parents et puis le lendemain samedi de 9h jusqu'à 14 heures euh, pour euh, ceux qui veulent aller étudier ailleurs états même euh, Canada donc je aussi le numéro euh, pour agence bi ça pourrait permettre euh, aux parents d'avoir information yi ci war bu ñu bëggee seen doom yi dem muy 77 708 08 08 et puis bu weesoo site internet bi numéro ñëw soit nga ñëw Canada EduHub wala nga ñëw Social Connection ñaari bureau yëpp ils sont prêts à t'accueillir. pour ah. li nga xamante mooy sa projet d'étude. Mhm. di nuyu aussi ñi nga xamante ñoom laa nekkal di liggéey. Mhm. ñu nekk ñu xarañ. Mhm. ñoo xamante vraiment ils ont apporté beaucoup de bienfaits à beaucoup d'étudiants aujourd'hui yoo xamante réussir nañu mhm. te su ma tukkee ba tas sama étudiants yi ñu ne ma man fii laay liggéey fii laay liggéey damay am fierté si ñi nga xamante ne aussi am nañu lu ndaw loo xamante ne apporté nañ ko ci carrière étudiant bi mhm. ndax parent bi day def mën-mënam ñun ñu def suñu mën-mën xale bi tamit am jomam def mën-mënam mu nekk lépp loo xamante ni day day day permettre kooku réussir mhm. te que su réussiree tamit ambassadeur u Sénégal la Sénégal moo si kontaan euh, balaa ñuy terminer rek damay kontaan ci loolu wax ne que tey Sénégal am na loo xamante ni ci Afrique lu mel ni kon dëkk bu mel ni kon Canada nekkul nekk Canada kese la lu may wax mais dañuy dellu di ci wax a attractif actuellement et que nit ñi trop mais Canada dafa am loo xamante ne ñaari dëkk lañ ko ubbil Afrique muy vole direct mm-hmm. Sénégal ak Maroc maanaam dañuy ne tey su fekkee yow condition yëpp mm, wane nga ko nga fay école euh, envoyé dix mille dollars canadiens si sa benn compte euh, euh, au Canada sa procédure de demande de visa vingt et un lay def day ah, gaaw loolu ñaari dëkk lañ ko lañ ko ubbil muy Maroc ak Sénégal donc loolu day wane que ne tey ñi nga xamante ne demoon nañu jàng ay ambassadeurs yu baax lañu wane nañu lu rafet ba tey su ñuy sélectionné si dëkk si yenn critères yi Sénégal bokk na si dëkk yi nga xamante ni moom la ñuy gën a et on ñun on t'encourage euh, Birane nekk xale ba pare depuis plus de dix ans nga nekk ci domaine boo xamante ni euh, tey bu ñu naan crédibilité mm-hmm. euh, yow ak agence bi nga jiite mm-hmm. tax na ñu koy wax donc mm-hmm. rendez-vous Euh, ce vendredi comme mmh. j'ai dit tout à l'heure peut-être que toutes les questions yu mën a servir euh, d'information aux étudiants peut-être dama ko mën a wax mhm. donc l'idéal est ngeen demal seen bopp vendredi mhm. euh, ak samedi ci salon international de l'éducation ou dès à présent euh, ngeen contacter leen ci 77 Euh, merci d'être passé nous merci Birane. beaucoup peut ma def comme journaliste. waaw le mot de la fin. waaw mooy ñu ngi leen di xaar si événement yi. comme xale yi nga xamante ni ñoom la waxal généralement c'est les moins de ans moins de mhm. trop si réseaux sociaux yi. Mhm. ku si social connexion wala consulting wala nga tapé Canada EduHub. di nga am toutes les informations si bépp plateforme boo xamante ni moom nga gën a nekk à l'aise. voilà di la remercier di la encourager yow

Euh, di leen remercier yéen ñëpp merci en tout cas euh, Birane ça je ferai voilà mhm. Pape Samba chaque jour mu sonal ma ci mais j'organiserai prochainement des euh, des masterclass peut-être avant may bàyyi n'est-ce pas euh, donc contacter leen euh, euh, euh ak agence bi euh, au 77 708 08 08 on va prendre une pause puisque dans quelques instants daañu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média ci wàllu jàng bi ak jàngale bi j'aimerais vous inviter ci événement boo xamante ni professeur Massamba Gueye moo koy amal xam ngeen ni professeur dafa génnee livre boo xamante ni moo ngi ko tuddee viatique pour se muscler la tête alors présentation ak dédicace su livre bi euh, dina ko amal mercredi 26 juillet 2023 à partir de 16h ci musée des civilisations noires donc si vous êtes étudiant si vous êtes élève euh, si vous fan Euh, du docteur wala bu dee da ngeen bëgg euh, dundu viatique yi nga xamante ni def na ko ci recueillam boobule euh, ngeen ñëw euh, fekkee euh, présentation ak dédicace livre bi donc ce sera pour ce mercredi 26 juillet 2023 à partir de 16h ca fi nga xam ni mooy musée des civilisations noires leneen loo xamante ni suñu événement la Oustaz Modou fal xam ngeen ni euh, dafa ibi euh, daara ca boori Louga euh, daanaka mu ngi bëgg a def ay weer bi mu tàmbalee tabax bi mbir mi nag dafay doog a pare. moo tax ñu fas yéene amal euh, inauguration bi euh, di événement boo xamante ne ñu ngi ci woo euh, Sénégal yëpp loolu itam soxal na wàllu njàng mi ak njàngale mi ku ne xam ne ni Oustaz Mout Fall nitu daara la wala daara moo ko defar te bëri na ci ay waajur yoo xamante ni bëgg nañu yóbbu seeni doom Euh, ci euh, daara mais souvent du ñu xam ban daara exactement euh, lu ñu koy yóbbu daara ji nag di Médinatul Rasoul daañu ko inauguré incha allah le août di tombé ak dimanche ca dëkk bu ñu naan Kébémer ci Louga loolee nag bëgg nañu ñëpp bàyyi ci xel mën nañu leen tegal annonce bi ngeen mën ko préparer en attendant le 13. di ko yëgal ak di ci woo son excellence monsieur Macky Sall président de la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki sénégal mbokki àdduna ci kaw ndigalul cheikh seydi aboubacar si mansour xalifa général di tijaan yàlla na yàlla guddalaw fanam te yokk ak wéram nit ku baax ki diine di sago nit ku baax ki senegal di sago boroom xam-xam bu mag te sell bi àdduna bëgg di du modou fall mu du fall bu télévision futur média xaritu réew mi soppe waa diaspora bi oustaz modou fall moo am mbégte mu mag di yëgal ñëpp ne tabax pare na daara internat madinatul rasoul la tudd ma nga ca Kébémer ga ca Louga dimanche fukki fan ak ñett ci weeru août atum 2023 ci lañ koy ubbi daara internat madinatul rasoul bu sas Modou daara ju moderne la di jàngal seeni doom alxuraanul karim di leen yar ci l'islam di leen xamal seen diine enseignement coranique de qualité ci condition yi gën ci xale oustaz Modou Fall fu ab jullit nekk ci réew mi fu ab soppe nekk ci réew mi ba ci bitim réew invité na la première dame du Sénégal monsieur Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur monsieur le ministre Moustapha Diop maire de Louga monsieur Mame Boye Diao directeur général caisse dépôt et consignation Serigne Moustapha Sy responsable moral daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Al Amine Serigne Bassirou Mbacké Abdou porte-parole xalifa général des Mourides Serigne Bass Khadim Awoba Soxna Bali Mbacké Mountakha El Hadji Demba borom EDK monsieur Diack soxna Mominatou Kébé mu Serigne Saliou docteur Fatou Diané Gueye ministre de la femme Serigne Makhtar El Hadji Abdoulaye Dia Sénico ministre Youssou PCA bu GFM monsieur Biram Ndour directeur général GFM monsieur Ndiaga Ndour monsieur Boubacar Ndour monsieur El Hadji Assane Gueye directeur général RFM monsieur Abdoulaye Dieye directeur général AIBD monsieur Mbagnick Diop Souche El Hadji Maskoke Malick Mbeng monsieur Moustapha Sow Microsen monsieur Ibrahima Ndoye procureur soxna ji Assou ci Amérique moom mi ñu duppee yaayu daara ji monsieur Lamine Ndaw transitaire Serigne Mbaye Diop Jamil El Hadji Modou Mbène Monsieur Bougane Gueye Dany Serigne Fallou Mbacké transitaire Mouhamed Silla Chérif Dione restaurant l'amiral ak Pape Matar Lo ouverture daara internat Madinatul Rasoul bu Oustaz Modou Fall dimanche 13 août 2023 ca Kébémer mu ngoog événement la boo xamante ni maanara nar a yore microcentrale bi ak Oustaz Modou Fall donc ce sera pour ce 13 août euh, ñu ngi ci woo ñëpp képp ku dëkk Kébémer képp ku nekk Louga euh, mën ngeen jóge itam ci dëkk yi pour ñëw fekkee ko képp koo xamante ni itam bëgg nga soutenir euh, Oustaz Modou ci projet bu am solo boobu la nga xamee ni am na yéene gën koo yaatal bëgg na ci dëkk bu ne mu samp fa au moins benn daara Euh, boo demee dëkk bu mel ni Italie euh, xam-xam bi nga xamee ni oustaz jëlee na ko euh, ci daara yi fii ci Sénégal yàgg na jàngal ay doom yi nit yoo xamante ni Sénégal la ñu fekk baax seen ay doom juddee foofu ci itali mu daan dem di leen jàngal donc mission boobu la nga xamee ni moo ngi ci bopp ba tey moom lay àggali fii ci Sénégal daara bi njëkk mu tabax ko inauguration bi la 13 la yi ci topp nag incha allah xam naa bis bu sottee rek dinañ leen ko wax donc ñu ngi koy féliciter dëgëral ko moom itam euh, ci daara la jaar euh, moo tax mu mel nii mu mel te ay nit yu mel ni moom defe naa ay référence la ñu euh, fii ci Sénégal midi 56 on va retrouver dans quelques instants Fatidien moo ñuy présenté journal wolof bi et puis juste après dinañu recevoir Yoro Ndiaye vous l'aimez tellement yaru na am na talent mën na way boo demee ci spectacle yi nga xamante ni mu ngi koy def souvent week-end yi euh, da ngay am envie saa yu Yoro Ndiaye tëggee nga dem fekkee ko Yoro Ndiaye baatam ak gitaaram loolu rek defe naa doy na spectacle ñu présenter lu bees li nga xamee ni génn na ko et puis am na ay projet yu bëri yoo xamante ni Yoro Ndiaye mu ngi ci regardez ces euh, images mu ngi bokk euh, ci clip bi mu mujjee génne mais xam naa ci kanam tuuti daan ci waxtaan ce sera juste après cette page de pub la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité, des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy